ma jaamam door suba ak ngoon la dëkkee ak man def ma jaamam def ma mbaamam di ma toroxal la dëkkee ak man tey ba loolu day def ba yàq seen jàng imaam tey yow lan nga mën a wax si noonu moom dëgg-dëgg xale ñu ngi bëgg a jàng waaye seen waajur yi di leen may borom kër wala ñu seen jàng bi jaar fa yàqu léegi-léegi dugg seen jàng borom dugg si sëy waaye nag sëy ba doon demee na waroon demee ba xale ba sëyam yàqu njàngam yàqu mu nekk di song songaan loolu nag mu nekk loo xam ne

ñu ngi aju na ne gën a boo gisee xale ñu gaaw màggil sax teel a sëy bi balaa ngay dem boole yëpp jeex na gaaw a sëy daal baax gaaw a sëy baax waaye xale yi moo tax dong dong waa ji ko def waaye bu nekk loolu daay ñëw baax te buy amee doom taawam ëllëg boo ko gisee nit ku wér lay doon waaw waaye léegi nag gis na ni macha allah yàlla rek moo ñu dimbale waaw ak ni ngeen di def nii yal na yàlla jàppale leen waaye ku ne xam na ne lii moom teel a sëy baaxul waaw teel sëy moom baaxul fenn waaw même góor sax teel si am jabar jabar baaxul teel si am jabar baaxul waaw parce que dalay teel a màggaloo dalay teel a jeexal sa doole kattan yëpp da koy teel a jeex ba tax na rawatina jigéen nag lii ngeen di doxal nii baax na lool yàlla ñi ngeen di waxal ni am dëgg-dëgg dégg ko euh, yàlla jàppale leen jàppale gune yi lii yëpp pour defar defar xale yi rek pour xale yi bu njëriñ seen njëriñ rek la bu suñu njëriñ ñun du seen njëriñ yéen góor yi jigéen ñun bu teel nga jàng ba yàlla dimbale la ah, nga am say diplôme yu baax ak diplôme yu ànd ak temps nga uti jëkkër boobaa jëkkër boo soxla yàlla mun na la koo defal waaye boo profité rek ci sàngara wut teel wala waajur yi boo profité wala suma euh, doomam suma jarbaataan nga mu fële bitim réew wala suma euh, am na mooy xaar ma digal ko fii ci loolu yëpp tardement jigéen ñi rek la yàlla dimbale ñu rek dina am dégg-dégg jërë ngeen kontaan naa bu baax macha allah yal yàlla jàppale leen ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm suma pour ba presque côté bi moom la côté bi euh, wàllu dëkk bi la wàllu am dëkkandoo waaw toujours xale yi man fu ma toll maa ngi ànd ak yi toujours maa ngi wax ak waxtaan yi luy jëriñ xale yi ëllëg parce que yi ñooy ndaw réew mi ëllëg ñoo yore ji ëllëg réew mi waaw tey tey tey tey tey man su may su may su may ñaari doom yëpp seen seen seen jëkkër ay gendarme lañ seen jabar ay gendarme lañ ñoom ñëpp ay a jabar ay gendarme loolu rek loolu doy na sant yàlla sa jabar di liggéey ngay liggéey loolu doy na sant yàlla waaw lii daal alhamdulilah li ma ciy daal yan na yàlla yokk rek yan na yàlla jàppale leen bu baax a baax yàlla jàppale leen a na lool jaadu na lool lu ñu a yàgg a def la waaye comme ni ko ba léegi daal di ko def dafay am yàlla yàlla am njëriñ la donc li ñëpp la may xale maa ko gën a mën ndax toujours dama koy wax mais nag ñu ñu xaaral beneen suñ bi ñu kenn su ma ko wax man dama ko indi su ma teg su ma ko gisee dama lay ci yow surtout xale da ngay xale bi da koy tànn yàq saa bi ak ak xale bi di yow la nii loolu yëpp dama jub tey soo gisee ñu ne l'âge légal bi relève li nga àndal ñëpp xam ɗo aɗa imbage jeg kadi ko jikwa innene ɓen nda koye ene wasinaɓe ɗo lalaɗi ɓe iɗata ɗo ha callel ɓe i contane teɗa baax i ƴettanaɓe hatta i ɓatnan ley seeɗi ɗi leyke ga ndax affaire ɗuɓe to mare a wago a yiɗaga immi aɗa je i mbago préparé ka anone jofere mbanon len fana mais mbete refna ndegami ɗigi ɗigi i yeegu bon ɗo ley fa ɓe togo waɓ ɗo ley den ɗi nda koy contane kikorit ke lool i kakoro ke ɗi kam ananeniyeytumen ndegam sasiji asangur law pour kon na nga xamante ni classe alphabétisation bi nos sœurs am fii ni yéen waroon ko waajale mu am si ay manquement yu bari loolu aussi ñu ngi siy bu baax xam naa Fatou Faye yow ak waa classe alphabétisation bi da di jege si rek parce que micro bi moo mënul egg si ba su boobaa ñu def benn jàkkaarle. comme ni ñu waroon a teewe teewuñu ndax taw bee tax ak tamit ñu añ li nga xamante ne àll bi lay jëm moo tax ni ñu mënuñoo génn bu baax waaye li nga xamante ne moom la xeex mooy xale yi nga xamante dañ leen di maye à l'âge de 16 ans maanaam. ci fukki at ak juróom-benn dañuy may xale jigéen ñi loolu baaxul ndax li nga xamante ne moom lay jur dafa bëri torop ci li nga xamante ne mooy wàllu sëy bi kooku bu sëyee tey bu fekkee dafa war a am doom mën nañ koo opérer benn mën nañu mën na see génn mën na see ñàkk génn ndax léegi ndax benn loi moo ko tëral loi boobu nag dañ ko war a appliquer surtout ñu yaay yi ñu jàppale xale yi ñu mën a continuer seen njàng mi mën a am dara donc yow sa doom bu fekkee dafa jàng ba am dara tey yow loolu maître bi ko jàngal moom yow mi su ko jur yaa si ñëkk a jëriñu balaa maître bi di si kii te maître bi sa mën naa sax du gis dootoo gis élève boobu yow mi nekk yaay parents yi ñooy jëriñu si li nga xamante ne moom la xale bi di am kon nag ñu jàpp li ñu wax mooy li waa bi wax mooy ñu ñuy may xale yi à l'âge de 18 ans maanaam fukki at ak juróom-ñett nañu fexe ñu jàpp loolu ñi ñu xam ne ñoo fi tamit boo demee foo dëkkal ki nga xamante ne yéen a dëkk ndaw soo ko expliqué li nga xamante ne moom la projet bi wax fii su ko defee ngeen jàppale ñu si ngir yàlla xale yi mun a toog ba 18 ans door a am jëkkër wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo bi maa ngi leen nuyu di sant di leen gërëm di nuyu ñu ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla nu ngeen ñëwee nii bettange la parce que instant bi ñëpp ñu ngi ci liggéey ñi ñi ñu ngi ci togg añ. parce que kii àll bi moo tax liggéey àll bi moo tax ñu bëri teewuñ ci man mi di wax ak yéen sax man mi ci togg laa nekk nii moo tax kii bu bett ngeen ma bettee nii wax dëgg yàlla mais maa ngi jaar ñëpp kii bi nag projet bi moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci parce que am na njëriñ njëriñ bu nga xamante ne euh, gis nañ suñu bopp bu baax a baax a baax a baax te lii tam ngeen indi comme wax affaire yi teel a maye xale yi loolu tamit du yoon xale bu dalee di seize ans war nañ koo mere bu amee dix-huit ans ba vingt ans baax na pour ñu maye ko teel a maye xale yi tamit day def gàllankoor yéen waajur yi ñu ngi leen di ñaax bu baax a baax a baax ngeen bàyyi ci xel bu baax wax dëgg yàlla parce que teel a maye xale moom. ci àddunaam donc looloo tax ñu jóg ak suñu caravane de sensibilisation pour waxtaan ak population bi ñu remercier mairie bi nga xam ne moom moo ci jàpp na si a baax parce que moom moo ci teg loxo ba ñu mën a li nga xam ne moom mooy véhicule yi nga xam ne moom lañ teg ci ay matériel en même temps aussi équipe municipale dañuy gis ne ménage yi léegi maanaam muu bu sëy bari na ay fleur bari na ay divorce loolu yëpp gis nañu ne a maye xale yi bokk na ci li nga xam ne moom moo koy indi

jaar ba yeneen conséquence yi bokk na ci flot yi constaté ci ménage yi mais diversité yi tamit donc tout ça. kàddu bi ki nga xam ne moom mooy madame Senghor. fii ci commune Toubacouta. ziar donc ñu rafetlu seen euh, jotaay bi vraiment parce que euh, dafa nekk thème boo xamante ne dafa am importance. parce y a quelqu'un euh, y a yàgg activités mais vraiment il y a un a ngeen a ci une jàppale ci suñu commune y a sensibilisation côté ay côté nous vraiment mu nekk liggéey boo xamante ñu ngi leen ciy jaajëfal bu une vraiment si euh, une zone pour vous ne wax dëgg problème ci non seulement dañ leen di teel a may wala ñuy teel wala aussi ñuy abandonné seen jàng pour mën dem euh, liggéey Dakar wala ñuy dem def yeneen activité yoo xamante ne moo wute ak jàng donc tey ñu leen jógee ci def seen caravane pour sensibiliser parents yi surtout sensibiliser élèves yi sensibiliser population bi pour que ñu bàyyi seen yu pour que euh, loi bi nga xamante ne mooy teel a may xale yi à 16 ans ñu ko yéegal ko yegg ko 10 ans ñu def ñu def lu rafetlu ko vraiment rafetlu ko bu baax a baax kontaan ci jataay bi ñaan yàlla rek euh, euh, liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi liggéey ñu am ci ndam lu kawe suñu njort bu ñu sañoon nag population Touba Coupé dañuy teew parce que lu mel nii population bi dañ ko war a jagleel ñoom ñoo ko moom ñoom ñu teew leen waxtaan parce que wax du doy. français bi nee na la pédagogie la répétition est pédagogique donc il faut que ñu wax saa su il faut que toujours rek ñuy wax ñaax xale yi ñaax parents yi vraiment ñu ngi leen di gërëm karamoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di sant vraiment merci. article bi nga xamante ne moom mooy wax ne xale jigéen ñi di sëy à l'âge de seize ans yéegal ko yéegal ko mu dem ba au moins dix-huit ans ba xale bu majeur. parce que tey jii xale boo xamante ne danga ko teel a maye sëy ay cëram motuñ bu ci jëlee ëmb mën naa am ay complication wala bu fekkente ne élève la boo xamante ne mu ngi jàng tey jii mën naa bu ci jëlee ëmb mën na ko yàqal njàngam te xam nga am na fi ñoo xamante ne bu ñu xasee ba am jabar rek dañuy bëgg di imposer seen jabar yi loo xamante ne ñu toog ca kër ga nekk femme au foyer leen toppatoo bañ a tey jàng donc bu ñu teyoon daal di si très important d'ailleurs il s'agit de l'âge légal du mariage de la jeune fille qui était de 6 ans au moins 6 fois à 8 ans ou plus euh, un point très important qui est actuellement très au niveau national mais aussi il fait l'actualité. Vous savez, l'éducation aujourd'hui, par rapport euh, au thème visé, les créneaux étaient d'abord l'accès à l'éducation que l'État du Sénégal aujourd'hui parvient à relever. Le deuxième point, c'était la qualité et le maintien. Le problème du maintien se pose aujourd'hui. Les abandons scolaires sont toujours nombreux et les causes souvent sont alléguées par rapport à la, le mariage, surtout par rapport aux jeunes filles. Et en général, quand on regarde de tout près, les abattus scolaires sont dits au mariage précoce. On pose pourquoi Souvent, quelqu'un l'a dit en bon âge c'est un dur. On verra jamais ou bien rarement un garçon qui se marie à l'âge de 16 ans, que pourtant les jeunes filles à l'âge de 16 ans ou bien 15 ans même donc, quand on pose la question, c'est-à-dire que quelles sont les causes, c'est souvent dit à une responsabilité des parents. Peut-être que c'est une de responsabilité ou bien des engagements. Il s'agit d'abord d'engagements engagements financiers, au suivi quotidien le parent doit assumer. Souvent, quand quelqu'un se présente, ou bien avec quelques moyen financier, souvent les parents démissionnent face à cet engagement. Mais aussi les conséquences de notre côté aussi sont des conséquences sanitaires. Un enfant de, de 16 ans qui n'a pas encore une aptitude physique à pouvoir vraiment gérer un foyer, à se marier, à se recréer, à pose aussi ce problème. Donc, c'est pour vous dire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui toutes les activités, toutes autorités administratives et locales qui sont là. En tout cas, l'autorité administrative que nous présentons, et très saisie, très, très à l'écoute D'ailleurs, on avait initié des rencontres à Kelsalundiani. C'était dans le même cadre. C'était comment encore maintenir les élèves et les enfants à l'école. Comment les protéger par rapport à certains prédateurs. Ce qui veut donc dire que l'action que vous meniez, c'est toujours la même action que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, nous insistons à ce que vraiment cette activité, qu'elle soit d'abord maintenue, mais aussi euh, euh additionnée, mais aussi euh, supportée par les collectivités territoriales donc les maires, les organisations locales qui sont là, nous leur lançons un défi, nous leur lançons la, leur tendons la main afin que cette activités soit civile, qu'elle soit partagée dans les de publiques. Et l'authentification, c'est d'abord essayer de convaincre. Sensibiliser quelqu'un, c'est essayer de convaincre. C'est lui dire les causes et les conséquences, les tenants et les aboutissants, pour afin qu'ils changent de comportement. Même si on même village, à 18 ans, le problème il s'agit d'une manière de comportement. Ce que nous voyons, c'est toujours, il y a même des mariages qui sont avancées mais on n'aura jamais une réclamation ou bien de possibilité à ce faire-là. Donc, c'est une question de comportement. En tout cas, moi, la seule solution que nous pouvons poser, c'est cette transition. Nous vous félicitons vraiment et vous remercions. Sachez que l'administration, nous plus. et à vos côtés. Et toutes les activités que nous devons mener en ce temps, on le fera. c e s t e a n i s a t i o n o u s demande pour qu'elle continue. Donc, a ce moment-là, pour qu'on y a i pour tout ce qui est amené à l'école, on ne s a n t que le guide. Nous avons d i r e c e Nous avons dit ni. Nous avons dit ni en solo. Parce que l'éducation d'abord, le que dans la conseil du Sénégal, une question accès, une question qualité, une question maintien. Ça, c'est pour c o m m e n c i r à nga war a dem université en général bu doon quarante élèves mu amoon presque vingt cinq wala trente cinq dañuy am anglais ñu dem université day néew bu ñu xoolee aussi li koy waral li gën a bëri surtout les jeunes bi mooy teel a mariage yooyu teel seen yooyu teel mariage boobu nag mariage précoce yooyu nag bu ñu xoolee li koy waral li gën a bëri parents yi ñooy démission démission boobu nag day indi problème li si gën a bëri aussi parce que les jeunes filles même ñoom ñooy dem ne xam ne fekkee dañuy viser yeneen objectif boo xamee bokkul ak communication donc loolu mën ko mën ko relever aussi âge bi tamit tant que sensibilisation bi jàllul parents d'élèves yi am ci population yi am ci aussi il faut compréhension boobu que ce soit partagé nit ki day day expliqué loo xam ne peut être amu ko woon boo ko fekkee comprendre bu mu comprendre ëllëg dina jël aussi des comportements yoo xam ne dina faciliter vraiment la réussite du kàddu googu laa bëggoon nekk action sous-préfet bi la Bakouka

l'État va comprendre vraiment les enjeux balaa la jël décision aussi et consulter les bases payer les bases donc décision que nous nous di jël c'est en tout cas pour favoriser pour améliorer la situation mais aussi décision que nous disons ko aussi tant que la base n'est pas encore vraiment à à cette activité donc nous vraiment nous boobu par rapport à ce relevé là Vous êtes nañ ko mais vous nañ ko plus de 20 ans mais tant que amul dénonciation amul refus bu ñu mënee population amul sens

ñu ngi koy wax ñi wa wax mariage précoce yi ñi ngi koy wax accouchement yi métti yëpp aussi tamit ñi ngi wax kon ñi bëgg di lancer un appel solennel aux jeunes filles di lancer un appel solennel aux mamans ne leen que ne mariage précoce yi ñuy def nañ ko bàyyi nañ ko éviter pour l'avenir de nos enfants parce que jigéen yi ñoom ñooy yaay yi jigéen ñi ñoom kër jigéen ñi ñoom ñooy yar jigéen ñoo éducation xale yi jigéen ñoo wax le du wax spéciale aux femmes non au mariage précoce non à la violence faite par les jeunes filles vraiment je vous remercie projet accompagner qu'on lancer un appel

cadre bi nga xam ne moom mooy kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci bi taxawaayam na autorité yi lii la ñuy séntu ci yéen de lii la ñuy xaar ci yéen. ngeen dimbali ñu parce que xam ngeen bokkul donc kàttan bu euh, ñu amoon ci li nga xam ne moom mooy néegu sëy yi ak yi ñu doon mayee da doon fekk suñu yaay da doon am kàttan mais léegi bu dee mariage yi da ngay divorce yi dañuy bëri te bu dee tamit ci seen wér gu yaram yu bëri population bi ñu mën a parce que tamit bu nekkee mbir la boo xam ne dafa tegu ci kaw ñëpp am benn groupe bu jël bo seen volonté seen engagement pour plaider pour loolu kon ñi yàlla may ñu am kaay def loolu dañ leen di wax jërëjëf jëf ñaanal leen yàlla tamit yéene bu dee lu baax la ci réew mi ñu nekk ñu bokk euh, fii nag ñoom ñooy décembre bi mu nekk tamit une commune phare

ak ñi nga xam ne ñoo nekk commune la dalee ci soxna yi amalu soxna jaar président de commission la commune bi su ma askan ci nekkoon tamit dafa am suñu évacué bu ñu micro micro sage femme bii nii suñu doom la suñu agent la tamit bu nekk di exercice ci soxna

cellule am nañ technicien en la matière bu mën a wax loo xam ne nit ñi danañ ko dégg toutefois mooy ñu jox la tànk lépp luñ war a wax ci turu commune bi ci turu maire moom mu porté moom ñu gën a partenariat ak usage su ko defee moom gën wax mën nga ko waxal ci commune parce que moo am national bi li nga xam ne moo ñu ñoo ngi gërëm di sant ñëpp man ba jox ma thème bi mais je crois que thème bi ça vient à l'heure parce que bu ñu gisee kër Samba Gueye ak su mu toll nii léegi nii rek laa doon repéré malade boo xam ne 16 ans la am ak bassin limite boo koy yóbbu comportement bu muy am non seulement inconscient la ci li koy a ndax direct césarienne mais tamit mu ngi libre amul boo xam ne xamul dafa leen liggéey te kër Samba Gueye dama leen di wax ci causerie ne leen 16 ans xale bi ci lay commencé di nekk ci âge puberté maanaam ngay gis weer yi di yokku nga gis ba comportement bi changé mu gën a doon femme instant yooyu day soxla développement ci biir yaramam muy butitu jurukaay bi muy lëpp mais âge boobu la ñuy jël kat liggéeyam kat jàngam dugal ko ci sëy non seulement ay cëram matagul mais tamit ak tëgul pour mu mën a diriger foyer te yooyu yëpp dañ koy gis mooy wane ni boo leen ne nañu jël âge bi de 16 ans jëlee ko 16 ans yóbbu ko 18 ans man de je suis pour te dinañ leen jàppale ba fu mu yem te parce que xam nañ ne li lii lor moo ëpp njëriñ fii xale yi xamuñu kii classe terminale lenn la ñu xam mooy di nga jàng ba troisième troisième commencé nga doon jàng kañ lay may chaque semaine dañuy dem ci école yi mais c'est la même chose à chaque fois boo demee borom troisième bu koy def bu ko jeexal. te complication yi ci ci gën a métti mooy ni que xale bi non seulement da ngay yàq adduna mais tamit même ci njuróom da nga koy indil ay complication te xale bu gisagul règle sax nga jox ko góor leneen la. fii yaa ngi fii. complication avortement yaa ngi fi ndax nag bu ñu fàtte ni ci popularité bi dafa am maanaam ci jënd boo xam ne matagul nga bëgg mu ëmb kooku buy indi complication dafa lay am lu dul ay saignement ñii ay rupture utérine ñii am ay avortement ñii sax dañuy dem ba am rétention maanaam doom bi loolu ci biir kon boo leen ñëwee. dañ leen di sargal di leen ñaanal bu fekkee ne sax ngeen di wut dana leen ko yàlla defal te parce que nag li ngeen di xeex ñun ñii ñu ngi toog suñu bureau di ko xeex chaque jour chaque jour de Dieu fait dinañ jël ay nit wax ak ñoom ñu bëggoon nag ba leen waxee tam loolu comme que mënuñu leen tere activité sexuelle ngeen leen sensibiliser ci planification familiale les grossesses non désirées yi moom mooy tax ñu moytu ko avortement clandestin yi moytu ko te moom mooy tax nit def infantile maanaam wasin ba pare ñu doon doomam waaw foogoon naa loolu laa am wax. merci kàtt bu baax a métti woon na te parce que boo commencé woon di wax rek góor yi dañuy déplacé wu mais actuellement am na ay xale yu may sii toog nañu ba am seen bas ñu ngi université te loolu yëpp njëriñ la mooy wane ni saugerie yi am na benn côté positif la te parce que am na prise de conscience ci parents yi ba pare xale ci boppam bu ñu leen mayee dañuy ñëw ba ci man ne ma madame man de dañ ma bëgg a maye te instant yi bëggatuma bëgguma sëy dama bëgg a continuer sama yi sëy waaw yooyu yëpp dañ ciy jàpp kon gis nañ ne affaire bi am na changement bu baax a baax. booba léegi. parti yi commune Gërëm di sant di gërëm suñuy relais. di sant di gërëm groupement yi groupement de femmes yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ñu nekk Sadio Sala nekk Batama nekk Medina Sangafo ak Sandi Koli ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ci ànd ak ñun di liggéey ak ñun ñu ngi leen di sant di leen di gërëm sañ ci beera du ma leen fàtte ñu ngi di gërëm di leen di gërëm bu baax di xale yi ngeen gis jàng nañ ba am seen bac nekk na université ñenn ñaa ngi master ñenn ñaa ngi première année ñi deuxième année ñenn ñu ngi am bac ren ren kon nag vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di kontaan ci yéen xam ne ñii ñun ñoo leen encadré ba ñu am bac ba fierté la pour ñu gis leen à chaque fois ñu ñuy topp di ànd ak ñu di xeex xeex bi ak ñun kon jërë ngeen bi ñu paasee waa SKFM suñuy partenaire lañ ak Sokone TV gis ngeen ko moom itam suñu naataango la ñëw na ànd ak ñun ci activité bi nekk doomu Sokone bokk ci commune euh, Sokone wala commune Nioro à Santar di liggéey lu am solo nekk ci ndaw kon wax dëgg ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm di la ñaanal fépp fu nga bëgg a yegg nga yegg foofu di gërëm Marta moom it suñu ancienne bénéficiaire ngeen moom à chaque fois moom la ñuy àndal mu ngi créé benn association bu nekk féete Touba Touta di ko gérer nekkoon produit non seulement à l'école ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm nag sama collègue yëpp ñi nga xamante ne def ci suba def ci ba activité bi ñu def ko ñu ngi àndateeg ñoom rawatina Karamo euh, Sarr vraiment euh, gis nañ taxawaay bi boo gisee ñu rek yaakaar naa ne yàlla ak yoo a ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak yéen Moussa Khady Ndong Khady Diatou ak ñi nga xam ne sax mënoon na ñëw te ñëwul ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen euh, wax ne jërë ngeen jëf naaj bi tàng na te terewul yéen ak ñu toog ma am nag benn ak loo xam ne lancé lancé jëmale ko autorité bi nga xam ne moo fi teew ñu ngi lay ñaan comme yaa am possibilité àgg ci décideurs yi ñu lay yóbbante ne la vraiment salué nañ li nga xam def na ko

nga jël ko maye ko ay cëram du mot bi ñu seetlu mooy xale euh, yi dañoo précoce cër yi dañuy gaaw lool nga ne déedéet fii mag la fekk xale bu ndaw la bu na ko indil ay complication ci comme ni ko sage femme bi waxee waaye war na ko mën a indil gàllankoor ci jàngam ñu ngi lay ñaan ne fépp boo yeewu ñu ngi lay ñaan nga yeggee fa suñuy message bëgg nañ bu baax a baax ñu jëlee âge yu mariage ci jigéen jëlee ko ci 16 ans yóbbu ko ci 18 ans loolu lañ lay ñaan ci kàttanu yàlla suñu borom loolu rek la ñu bëgg nga defal ñu ko à chaque fois ndaje bu ngeen am ñaan nañ la nga waxal ñu loolu jërëjëf sant nañ la gëm ñun Women Global ak ñaari projet programme bi nos sœurs à l'école ak nos sœurs leaders ñu ngi xeex lu bëree bëree bëree bëri bëri mais comme euh, tey jii li ñu andi mooy que ne ñu jëlee fii jegee jëlee fii euh, 16 ans bi yóbbu ko 18 ans euh, dañuy ñaan ñaan rek ba beneen ndaje comme monsieur le maire boobu léegi mu ngi taxaw beneen ndaje dinañ am occasion pour ñëwaat waxtaan ak askan bi ci nga xamante ne ñu ngi koy def ci ñaari problème. waaw moo ne nañ ko jox ci lay gën a yegg euh, fi may waxee nag mooy dëgg la relevé de seize à dix huit ans baax na te loolu léeg da ngay gis borom tey daal nga foog ne xale la fekk moom ak yaayam loolu paradoxe muy benn ñaareel ba tamit environnement nit ki présentement dafa complexe comprend que dans la mesure dangay bu ñu bu waxee mariage précoce wala sëy yu teel dama fekk ne mbir mi ci émotion la fekk waaw kan moo mën a xaajale kenn ak portable bi maanaam li fi nekk lu mën a détruire non seulement suñ dund mais suñu ànd dafa bëri ba nga xam ne pour xale bi moo xam bu bi la wala mu jigéen bi pour mu mucc lu ma xalaat ne tey euh, plaidoyer bi ngeen def dana baax ngeen yokk ci un plaidoyer pour xam traditionnellement naka la xale bi daal sàmmee boppam boo xoolee ci foyer yi léegi kenn du wax ak yaay kenn du wax ak papa kenn ku ne raay rek de telle am nañ culture yoo am na lu mën a saafara ci lii mais bu fekkee kër gi kenn mënul waxtaan ak kenn déjà léeg ya léegoon nuppeel ya maam yi doon def buñ ko pertee beneen culture la ñoo jël te eh, dégg naa ñuy wax ñu ne tout sa culture réer euh, li ma bëggoon wax mooy dafa am benn famille d'origine malienne bu fi nekkoon ñu dëkkoon naa kër moo liggéey wala tubaab ya buy mariage jotee dañ la naan may nañ la ñu am ñaari élèves yu fa dëkk biñ leen buggee maye ñu ñëw wax ko euh, kilifa école bi principal bi ci jàngalekat bi wax ci dem yegg fii ñu convoqué gendarmerie mu ne suur nañoo ñu abadan moom papa ji defe naa kenn bi topp nañ ko mu ngi jàngale di suturaal ay ay waajuram moom bu wax ma ni yéen ñii xoolal kenn ku nekk li papa ak yaay investir pour nga dem université dafa am loo xam ne question jom la ki waroon na dem àll bi yëpp si ngeen xool seen morom yi ñoo ko nekk di béy suba ak ngoon huit heures ba midi trois heures ba quatre heures wala ba cinq heures yow ñu bërgal la ne la demal jàng uniquement jàng la ñuy xaar bien buñ ci bàyyee xel war nañoo mën conscience xale bi bu góor bi wala bu jigéen ba mu satisfaire yaay ak baay ci seen yéene mooy nga am teraanga koo war a am sur le plan fumier ba pare mën a dund dëkkoo ñi nga war a dëkkoo ci jàmm ak salaam lii rek lañ ci doon def comme conclusion di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah